الله أكبر لا إله إلا الله pit. Hello? Oui. Voilà. Voilà. Eu vou fazer dar no meu Bate uma dar no meu lépp daanu nga xam non waaye romb la def xanaa duggoo ci boo duggee ci nga xool ko lépp naax saay la wax